je suis Diogo euh, conseil départemental, président en coopération décentralisée. Nous avons eu l'élection pour défendre les pour des droits citoyens. Mais ça s'est bien passé. Parce que vraiment, ça fait presque 4 jours ou 5 jours. Mais ce que nous une volonté, une volonté, ils ont une course Nous avons Ils ont une course de taux, mais une course de ñaar euh, jàngat nañ ko ci jàngat nañ ci choix bi ñu bi ñu président defal ci ñi mu tànn jar nañ ko et puis mérito nañ ko beneen bi mooy citoyen bu ci nekk danga am droit waroon niinal benn vote boo xam ne citoyen nga en tant que population bi dañu am ci yow confiance ñëw fol la ci benn élection leneen lu ñëw da nga ci war a dugal sa participation. non non non man gëmuma loolu man vraiment. Euh, boycotté bi élection yi passé niñ ko sabootee man daf ma euh leer na ñi ma ñi nek ni sama wet parce que vraiment jël sa alal dépense yi jël say moyens def ci am ño xamni ki ñu jital mo leen neexul wala bok dañu bëgg saboter. saboté vraiment du sincérité parce que sincérité moy bo togué kilifa mu ne la bul xol ci ki ma tànn xoolal ci man mi koy tànn nga ne ko d'accord na bo démé def lénen da nga trahir sa cadre. da nga def jikko joo xam ni dafa bokk ci jikkoy naafeq mooy da ngaa wax loo xam ni gëmoo ko wala defuloo ko te loolu baaxul. leader yi leader yi ñëw booy boycotté mais tey gis nga fi ay nit ñoo xam ni man Fatmata Ba euh, ci sama liste la demee ci Malick Gakou la bokk sëriñ Ba mii ci Khalifa Sall la bokk mais ñoom ñëpp dañ ñëw tey voté gis naa fi ñoom booy ñu nga xam ne euh, ci Moutarchidine la lañu bokk nu mu pur la ñu bokk kon opposition bi ñi fi nekk tey. non boycotté wuñu leader yi ci kaw mën nañ boycotté mais aussi sen conseil yi fi nek conscient nañ ni vote bi vote bu am solo la ñom sen leader sen i militant weddi nañ lu leen parce que moy nga ni man boycotté na say say conseil ñëw di voter non xam nga lu amul njëriñ ci réew rek c'est parce que dañu gis dañu agul ci biir doxalin ba na mu mel su amul won njëriñ duñ ko fi tek tay euh kuréel googu rapport yi ñuy def c'est pas parce que ñëpp lañ ko wax ñoy auditer ministre yi dañuy dem hôpital euh, principal dem euh, yeneen hôpital yi dem ci yeneen institut yu nga xam ne dafa gën a xóot ci biir ñoom ñoo leen di enquête di leen auditer nga ñëw soo demee ci ci livre bi danga ciy gis ñoom ñëpp tey seen kuy ministre jaar nga fa. day jaaxal nit ñi parce que ministre bi munul toog fu mu toll ñu koy auditer mais bilan li muy def. kuréel gi day dem saytu ko xool nan la ko doxalee ak xaalis bi fan la ko dugal. est-ce que budget bi ñu ko voteel jaar na ci yoon li ñu ko wax def li mu ci wax def na ko ci. kuréel googu boo naan amul njariñ c'est parce que yaa ngi nax sa bopp. que ñun personnellement bokkuñu Benno Bokk Yaakaar dañuy ñëw rejoindre Benno Bokk Yaakaar pour appuyer ko. kon nit nag bu ñëwee di la appuyer war nga am conscience yow ñi ñëw di la jàppale. war nga xam ne vraiment yow yaa gën a farlu ki ñëw di la jàppale ci sa kër waajur mais yow yaa ko war a gën a farlu ci lim lay jàppale man jàpp naa ni waa Bennoo waruñu xool waruñu xool ñoom seeni doom di reyante ci seeni biir kër parce que loolu mooy lan ñoom président la ñu am bu président perte waxoon naa ko ci élection yi interview yi ma def yëpp xool leen ko dama leen ni woon bis bu ngeen sàgganee ba Bennoo Bokk Yaakaar perte élection yi ah da ngeen màtt seen loxo wi cax ko te loolu moo am tey tey yeewi askan bi fi nekk wax ma lan la ñu def ci mbënd mi fi nekk du pomp du dara lu ñu def lu dul ku nekk yaa ngi toog sa kër parce que ku mosul jiite ku mosul jiite biro benn biro boo bëggee jiite ab goxu lëmm mais foo jëm amoo benn expérience lu ñu la jox da nga jàpp ni yow la ak say militant loolu population bi rek ñoo ko ñoo ci suuf lu wax suñu borom la yor ci suñu borom la nekk xam nga euh, sunu borom mooy jox nguur ku ko neex te moo koy dindi ci heure bu ko neexee ñun ànduñoo kenn parce que dafa am lu ñuy séentu ci moom man ànduma ak bennoo parce que dama am lu may séentu benn mais dama xam ne ki jiite bennoo ñu ko jàppalee dama jàpp ne réew mi mooy dox parce que li mu fiy def amul benn président bu ko mos def ni mu koy defee aussi rek ak nan ak fan la koy def la nit ñi jóg war ko communication bi moo des ci loolu man dama jàpp ne amul des na leader sid yi ñoo war a jóg parce que sa kilifa bu dee def la muy def boo ko waxee noo ko war ta waxee da ko yàqal boo ko waxee foo ko war a waxee di nga ko yàqal soo ko waxee ña ko war a waxal di nga ko yàqal mooy wax dañ koy wax ni nga ko war a waxee ak ki nga ko war a waxal ak na ko war a waxee loolu dafa manqué ci bennoo ah, léegi ci case bi nii ci fi may déviation yi nii maa ngi gis ndox mi muy muy muy dem amul benn inondation mais zone yi nga xam ne peut-être travaux yi àggu fa te gis nga loolu aussi président dafay dégager montant ku jël ay milliards def ko ci mais bo denké ño xam peut-être sen farlu des na parce que leader loolu rek la mëna a président wacc sur le terrain wax ak askan bi défal leen taxawu ñu def travaux parce que man tay gëmuma un maire bu tok biroom naan noo kii la jox travaux ki lañu jox travaux yow yaay wacc sur le terrain wax li nga bëgg te euh, so xolé tay bassin d'érétation yi fi nek zone yi mu nek yépp amul inondation yëmbël nim daan inondé tay amna parti partie yoo xam ne soo ci côté ki bi inondation bi mi ngi dem ndox maa ngi dem parce que lan mooy problème bi mooy dafa àggagul xëy na lépp moo dajagul soo xoolee dakaar inondation bi li mu fi amee amu amu fi woon lan moo tax c'est parce que canalisation yi ñuy def pareegul. wax ni jeex na dama ni dañu nekk ci ay travaux parce que gas nañ fépp. loolu dafa yokk inondation yi travaux yi nekk en cours te pareegul dafa yokk inondation yi.